Manchester United fan Sénégal euh, maa ngi nuyu ñëpp ah euh, Seydou Diallo la président commission sportive bu Manchester United fan Sénégal te ñu amoon benn rencontre buñ doon def pour jouer si suñu biir euh, mu doon initiative boo xam ne yàgg nañ ko def bon pour gën a xool suñu équipe parce que ci biir li ñu doon man li ñu doon fans Manchester United yëpp dañoo amaale benn équipe boo xamante ni. dañuy jouer ak yeneen équipe yi ci mel ni ay fans Real fans barsa City ou Chelsea wala Liverpool le 18 bi ñu ngi war a jouer ñun ak Chelsea incha allah moo taxoon ñu ne tey nañ ñëw xool suñu équipe xool joueurs yi fan lañ toll parce que macha allah depuis ñu commencé jouer ay match ba léegi euh, yàlla dogal na ni amaguñu defet loolu mooy biu association bi fexe ba suñu tour egg fu nekk fexe ba ñu reconnaitre ñu fépp loolu tamit tax na ñu dajaloo euh, samp lii parce que Manchester United Sénégal moom euh, du dakaar kese boo xool am na ñu jógee ba Saint-Louis am na ñu jógee ba Thiès am na ñu jógee ba Louga fu nekk dañ fay jóge pour ñëw euh, ànd ak ñun ci bis loolu mbégte la te lépp rek li ñu bëgg Manchester United moo ko waral parce que ñun ñëpp ñoo bokk même. objectif ñoo bokk même li ñu bëgg moo tax tey yàlla dogal ñu dajaloo yàgg nañ joué nag yàgg nañ joué nañ sax ak US euh, Gorée yàlla may ñu si ndam kon nekkuñu timbu ndaw ci biir tim bi am na ay joueurs de qualité am na joueurs yoo xamante ni dañuy compétir am nañ fi ay sage ñoo xamante ni ñoo ñuy conseiller am nañ ci ay kilifa daal ci biir tim bi kon loolu sant yàlla la li ñuy ñaan rek mooy ñu gën a déggoo suñu biir xama nga respect bi gën a daw xam nga lépp gën a baax quoi incha allah. dañ bëggoon association bi waaw association bi ñu ngi ko créé depuis euh, deux mille dix huit ki ko créé bokk na ci ñu ko taxawal muy Mouhamed Semou Diouf tey man Facebook laa ko gisee man miy toog di wax yàlla dogal may contact contacté ak moom ba mu ni ma duggee ci groupe bi ñu duggee ci groupe bi nag yàlla dogal ñu tombé juste ñuy fal ay post xëy na seen confiance moo tax ñu jox ma ma nekk seen président commission sportive mais sant yàlla depuis ma doon ko ba léegi équipe bi macha allah amagul défaite ñuy ñaan yàlla mu continuer waaw depuis ñu ngi ko taxawalee deux mille dix huit ba léegi ñu ngi mën ay ay action yoo xamante ni day développer football ci côté yëpp ba ñu ngi bëgg a organiser benn don de sang mais date bi moo ñëwagul moo tax bëgguñu ci sori ñu ngi ko bëgg organiser ñun daal lépp li nga xamante ni bëgg nañ euh, lëkkaloog même centre formation yi pour joueurs yi nga xamante ni tey ñu ngi si team bi nan la ñuy def ba seen seen rêve ñu mën ko réaliser quoi maanaam ñu dem jouer ci équipe championnat yi lépp lu ñuy def tamit social pour suñu dëkk donte lu ñu nekk nekk man fan sa Manchester United tamit dañu war a taxaw pour def sociale pour suñu dëkk waaw loolu la woon. est-ce que am ngeen ay ay ay ay ay communication waaw am nañ am nañ am nañ ay maanaam ay nit ñi nga xamante ni tey mën naa ne euh, Manchester United mën naa ne Manchester United reconnaître nañu parce que tey yàlla dogal na ni am nañ suñu récépissé kon alhamdulilah tey dem nañ ba am suñu kayitu bopp kon loolu sant yàlla la parce que euh, équipe bu la reconnaître tey du dem ba ngay dox ba am sa récépissé tey lépp lu association di def ñun mën nañ ko def loolu sant yàlla la quoi. Hmm. nguur bi jàppale mhm. euh, mhm. euh, euh, ci moom nag mais bëgg nañ ko mais parce que ñoom comme dañuy jàpp ne ñun ay fans Manchester United la moo tax day xaw a jafe daal waaw mais dinañ liggéey loo xamante ni incha allah ñoom dinañ ci gis seen bopp ba ñu ñu ñu ñu mën ñu nu mu tuddati ñu mën ñu recevoir wax ak ñoom mais am nañ ci ay nit nag ñoo xamante ne tey ñu ngi ci fédération bi ñu ngi ñuy jàppale ñu ñuy conseiller xam nga xool fan la ñu war a mën a teg suñu tànk ba lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko réaliser incha allah mu yomb. waaw lépp li li nga xamante ni gis nga ko fi nag ci suñu poste lay jugee ñun ñëpp ci suñu poste lay jugee ndax am na ay bonne volonté yoo xamante ni ñu ngi ci groupe bi même suñu footballul tey dinañ jot dinañ joxe seen cotisation mais lépp lu ñuy def rek cotisation lañ ciy jiital ñun cotisation ci la ñuy dox. képp pour ñëpp gis si seen bopp tey mën naa ne tey bés bii ñu taxawal ak yeneen bés yi ñu taxawal yëpp dañoo cotiser pour taxawal ko stade bi ñoo koy fayal suñu bopp jus yi fi gis ndox yi lépp maanaam ñun ci suñu biir dara du ñun lépp ñun li ñuy ñaan rek lenn la mooy euh, yàlla musal ñu ci euh, seytaane ba suñu ànd bi mu mu lépp di jàmm parce que gis nañ fi groupe yoo xam ne xaalis moo koy tas mais comme ñun suñu groupe transparence dafay am parce que lépp lu ñuy def rek dañ koy dañ koy wane ci groupe bi lépp muy xaalis bi fu muy dugg dañ koy wane ñi cotiser dañ koy wane lépp dañ koy wane tey bu ñu paree nii dañuy def def bilan dañuy dem def bilan ne lii lii lañ am lii lañ dépensé lii moo fi des ñun noonu la ñuy dundee quoi mais lépp rek suñu poche lay jógee. Euh, nga mel ne comme temps tamit góor mhm. euh, ay góor lañ mhm. est association am na ay jigéen waaw association am na ay jigéen am na ay joueuses sax ñoo xam ne dañuy football ay jigéen dañuy football am na ci biir am na ci ko xamante ni mi ngi équipe nationale Sénégal ci jigéen ñi xam nga li ñaax gars tamit mooy ñun xamante nañ suñu biir gis nga boo ñu doon déglu ci groupe bi da nga naan nii buñ gisantee dañuy xeex parce que des fois divergence bi day am kii ne non lii lañ war a def kii ne non coach bi lii kii gis idée dañuy dem ba dañuy xuloo mais gis nga bu ñu dajee fii day mel ni loolu yëpp musul am yàlla moom may nañu loolu ñu ko koy santee bu baax a baax alhamdulilah soo ñu fekkee ci groupe bi di déglu audio yi da nga naan ñii bu ñu gisantee dañuy reyante mais tey bu ñu gisantee day mel ni ñoo bokk nday ak baay te ñoo ko bokk sax ndax des fois football moo mel noonu football ku nekk ni ngay gisee ku nekk ak sa point de vue nit ki bu d'accord ak yow day indi ay idée ngeen waxtaan echange des fois dina jur ay détails yu ndaw mais su jeexee jeex na ñun ñoo bokk même li ñu bëgg ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk Manchester United loolu la yàlla dogal moo tax quoi li ñu leen di ñaax nag mooy ñu gën a nekk benn bokk ndey bokk baay social bi gën a am sociale bi surtout loolu ba pare communication bi di jàll ci bu ñu ñëwee ci rencontre yi kenn bañ a frustré wu parce que des fois dañ fi ñëw nekk fi ay quarante jours cinquante joueurs nga bëgg ci benn quatre-vingt-dix minutes ñëpp football loolu yombul loolu yombul te dañ ciy remercier coach bi bu baax waaw dañ ko ciy remercier parce que nga jiite ay ay joueurs yu bari des fois di nga génne nit mu mer des fois frustration day am mais mënul ñàkk ay affaire de góor la rek bu ñu demee rek dañuy toogaat waxtaanaat régler ko mu jeex parce que loolu tamit du yoon foo ñu régler ko parce que tey amul ba kenn warul frustré wu kenn ñun ñëpp ñoo war a ñoo war a nekk benn ñun ñoo war a nekk benn ñi xam ne dafa xaw a wàcc dafa xaw a wàcc dafa xaw mais dañ koy sante yàlla ko ndax tolloon nañ fi ay jamono yoo xam ne euh, mën naa ne Manchester United rek nga doon dégg mun na ne ay Manchester United rek nga doon dégg mais tey jii nii dem nañ ba euh, équipe bi am ay jafe-jafe équipe bi nekk ci ay jafe-jafe tey dañ koy dañ koy sante yàlla dañ koy sante yàlla euh, yàgg na euh, équipe bi yàgg na ci ay jafe-jafe booy xool depuis sept ans mi ngi ci ay jafe-jafe xaw ma huit ans donte nag ñi ngi jël ay trophée mais li ñu bëgg mooy jël championnat dem ba pare dem jëli Ligue des champions te loolu li koy maye mooy comme ni ni ni ni euh, ni staff bu bees bi di doxe mooy dem recruter ay joueurs de qualité ba pare ñu liggéey pour suba ñu liggéey pour suba parce que tey bu nekkee da nga dem jëndi ay joueurs yoo xam dañuy cher te bu ñëwee duñu la dara amul njëriñ loolu moo nekkoon problème Manchester United mais ak staff bu bees bi ñu xaar saison 2024 bii nii di ngeen gis beneen Manchester United incha allah jërëjëf. waaw man maa ngi tudd maa ngi tudd Babacar Sarr maa nekk coach association bi depuis 2018. même année bi 2018 boobu noonu si la intégré groupe bi association bi euh, mu nekk euh, nag euh, kii bu max kii bu ma neex ndaxte Manchester dafa nekk sama équipe ma amoon envi daje ceeg samay samay naataangoo yoo xam ne ñoo bokk bëgg-bëgg donc ba ma gisee ay ay benn association boo xam ne ay fans Manchester lañ ma def tout ba intégré si si groupe bi via ak sama frère nag sama frère moo ma dugal si groupe bi waaw groupe bi moom nekk na groupe boo xam ne vraiment am na cohésion boo xam ne yombul nga koy gis si si yenn groupe yi parce que depuis ba ma intégré groupe bi dafa mel ni man dama ci bokk depuis bañ koy dama daa mel ni daal si ñu sos groupe bi si la bokk te en fait man ñëw naa fekk groupe bi commencé dérouler ay activités yu yu bëri mais depuis ba ma intégré si la si la si la jël sama occupation ñoom tamit benn match laa gée ñu gis ma ne ma ah bëgg nañ la fal comme nga nekk suñ coach vraiment depuis nag boobu nag ñu ngi siy góorgóorlu yàlla suturaal nuñu si euh, amaguñ ci défaite def nañ ci ay rencontre yu bëree bëree bëri waaw mais yàlla mi ngi siy suturaal amaguñ ci défaite association bi nag nekk na association boo xam ne vraiment ñi si bokk ñëpp euh, ñoo bokk ndey bokk baay waaw ñu ngi ànd depuis 2018 te mosuñu si am benn jafe-jafe wala benn loo xam ne mën nañ ñu ko joxoñee quoi nu ñu yéen def li te rafetul vraiment depuis bañ ko créé 2018 waaw ñu ngi siy gis ñu ngi def action yoo xam ne yu am solo la vraiment. waaw association bi nag vraiment am équipe bi en fait nga xam ne moom laay contrôler nekk na équipe boo xam ne bu neex a contrôler la parce que joueurs yi nekk nañ ay professionnel en fait am na ñoo xam ne ay professionnel la ñu ngi si biir am na ñoo xam ne tamit ay amateur la ñu ngi si biir te vraiment saa buñ tasee di nga gis que ne ñu ngi def ay match yu am yu intéressant boog vraiment parce que daje nañ fekk ay équipe yoo xam ne ay équipe yu ñuy coow la comme Gorée comme Milan comme Marseille te vraiment bañ jàkkaarloog ñoom ñëpp euh, wan nañ leen ne carrément euh, ñoon ñun ay professionnel lañ quoi vraiment. waaw ñu gën a góorgóorlu rek nekk benn vraiment lancé bi ñu nekk nii. Ah, waaw yom yomb na yombul nag yomb na yombul parce que dang nga gis da nga ciy gis nit ku nekk te tamit da nga ciy gis umeur humeur bu nekk quoi léegi nag yow mi nga xam ne yow lañ jiital euh, nga war a doon fédérateur yow yaa war a gérer humeur yooyu yëpp waaw équipe bi ku nekk gis si boppam muy xale di mag di ndaw da ngay gis équipe bi ay tranche d'âge yoo xam ne ñii mat nañu papa ñi mat nañ ñu nijaay ñii mat nañu grand frère ñii ñii suñuy raq lañ vraiment te humeur yooyu yëpp ñu ngi koy gérer vraiment neexul contrôler nag parce que effectif bi nekk na effectif boo xam ne euh, bu bu danse la quoi bu bëri la saa bu ñu daje si ay rencontre da ngay da ngay am problème sax ne man est-ce ñii ñëpp ñëw est-ce que dinaa leen mën a classer ñu g mais yàlla ñu ngi ñu siy dimbali bu baax a baax a baax depuis ba ñuy organiser ay rencontre kenn musul ñëw fekkee rencontre te participer aussi vraiment ñu ngi si ñu ngi si sant yàlla quoi. tey ñu wax tuuti li waaw ñu gën a góorgóorlu rek gën a yokku liggéey bi quoi parce que tamit euh, yàgg nañ si si jafe-jafe yu ñu nekk. yàgg nañ ci trop en tant que club bu toll ni Manchester United donc instant bi ñun daal ñu leen di kii te dañ ciy waxtaan tout le temps mooy ñu ñaax leen ñu gën a góorgóorlu gën a fas jom gën a gën a gën a euh, am ay objectifs yoo xam ne yu jëmale équipe bi kanam la quoi en fait parce que Manchester euh, am na si période de dégrésage bi ñu nekk nii vraiment euh, war nañ ci war nañ ci jug quoi benn instant parce que équipe bi war na teelu niveau bi mu nekkoon. parce que Manchester boo daan coow Manchester da ngay tudd Manchester di tudd ay Real Madrid ak équipe yu demee noonu. donc bu ñu demee ba instant bii nii ñuy participer ay Europa League ak ay yooyu noonu te vraiment war nañ dépasser euh, kii yooy compétition yooyu donc di ñaax équipe bi ñu gën a fas jom xool recrues yu gën a yu gën a baax ñu jéem a def recrutement yu baax jéem a xool tamit condition physique bi tamit joueurs yi travail si surtout te tamit blessures yi tamit bu fekkee mën nañ recruter ay médecins yoo xam ne vraiment dañu mën a dinañ mën a traiter joueurs yi permettre leen ñu nekk si ay conditions yu adéquates vraiment ñun daal loolu lañ leen di ñaax di leen gëm kii ñu gën si liggéey quoi vraiment. waaw équipe bi moom vraiment am na am na ay gars yoo xam ne ñu ngi si yàgg nañ ci am na si ñoo xam ne sax dem nañ ba tukki dem nañ ba génn Sénégal. peut-être ñu ngi compétir si équipe ñu nekk foofu noonu ay xale ay ay ay kii donc di ñaax ñi fi nekk ñu gën a liggéey gën a travailler gën a tamit jox cër gën a jox gëdd tamit euh, association bi parce que buñ demee bay def ay rencontre pour maanaam am visibilité ñëpp xam ñu tamit la tamit dajeeg si ak ay équipe yoo xam ne vraiment buñ dajeek ñoom dinañ xam ne ñii kat ay professionnel lañ donc dañuy ñaax joueurs yi ñuy gën di liggéey tout le temps man saa yi ma ñëwee dama leen wax gën leen liggéey gën leen liggéey surtout di leen jox exemple si suñ benn grand bu nekk fii boo xam ne vraiment suñ grand la suñ mag la euh, am na si ñoo xam ne sax mën na leen papa si si si bi mais chaque jour soo ko gisee da ngay gis professionnalisme si moom da gis tout le temps soo ko suy suy participer si rencontre yi da ngay gis que ne euh, euh, jox na gëdd association bi te tamit jox na gëdd li muy def quoi vraiment di si ñaax gars yi ñu gën a liggéey te tamit di leen wax ñu préparer. match yi di ñëw parce que instant bi si début saison lañ nekk tey dañoo defoon match préparation entre ñun de pour xoolaat équipe bi xoolaat nouveau venu yi quoi donc tey jii nii bu fekkee nouveau venu yi ñëw xool nañ ci parce que préparation match yi ñuy am après euh, ñu si dem ni Chelsea ñu si demee ni Real euh, dañu bëgg dañu bëgg am daal effectif boo xam ne saay buñ jàkkaarloog ñoom dinañ xam ne ah tey daal dañ nañ dëgg quoi ñi daan dajeel nekkul ñii vraiment ñu siy ñaax gars bu baax ñu gën si liggéey. salaamaaleykum la famille Manchester United fan Sénégal ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax euh, waaw maa ngi taxaw ak euh, le président Guèye Teranga président comité organisation bi voilà donc man euh, man la Mouhamed Semou Diouf vice-président association Manchester United fan Sénégal en même temps itam di trésorier bi ah je suis chargé de ça aussi mais bon balaa maa commencé wax itam euh, foog mu nuyu ki nga xamante ne moom mooy suñu kilifa suñu président muy euh, président Bilic comme niñ koy niñ koy waxee ñu xamee ko ci turu euh, Ibrahima Balde. ñu ngi koy char bu baax a baax a baax ci turam itam ñu ngi jàllale nuyoo bi pour waa bureau beeg ñëpp waaw ñu ngi lay char ñëpp daal ñu ngi ñu ngi bëggee ñëpp. Eh, eh, li nga xam mooy association waaw euh, Manchester United euh, fan Sénégal euh, association la boo xamante ne ñu ngi koy commencé créer depuis 2018 lu tax ñu ñu taxawal ko parce que dañoo demoon ba jàngat ne Sénégal bari na ay fans yoo xamante ne. Euh, c'est des fans de Manchester United ñoom Manchester United la ñuy supporter moom moo leen ñor et que nag mu am benn fan base bu dëgër boo xamante ne itam euh, commencé woon nañ ko di ko am ndànk-ndànk donc nag intégration gars yi itam euh, ci Gueye Teranga bii la commencé ah ki ma taxawal nii parce que ñu ngi njëkk a commencé ci li nga xamante ne moom mooy groupe WhatsApp bi d'abord ci groupe WhatsApp bi nag en 2018 février novembre 2000 2018 si lañ développé li nga xamante ne nag moom mooy suñu page Facebook Euh, page page Facebook Manchester United fan Sénégal bi itam mu FS bi euh, ñu fay lancé ay ay ay annonce di wax gars yi ne euh, képp ki nga xamante ne te un fan de Manchester United bëgg a intégré association wu Manchester United bi rek mën nga see ñëw. donc nag connaissance yi ñu ci am yëpp découverte yi ñu ci am yëpp à part xëy na kii ma taxawal ni muy sama muy sama bras droit di sama frère. je pense que ñeneen ñi des ñëpp foofu lañ ko jaaree ñenn ñi via Instagram bu bu mu FS Sénégal. ñeneen ñi via via TikTok ñeneen ñi itam via Facebook donc euh, adhésion yi foofu la foofu la foofu la foofu la jaaree en quelque sorte waaw. dajale leen yomb na. non non non ñëpp bokkuñu bokkuñu fi ñu dëkk au fait euh, c'est-à-dire euh, association dajale nit ñi yombul. Euh, yàlla may nañu ñu nekk association boo xamante ne euh, nous avons des fan partout partout partout partout au niveau du Sénégal ah si quatorze régions yëpp fépp foo si dem rek on a des représentants et eh, association bi yàlla def na itam euh, jot nañ commencé créer ay cellules ah euh, de de fan base yoo xamante ne am nañ ñaar yu officiel pour l' instant yoo xamante ne même euh, ils sont fonctionnels mooy fan Manchester United fan Sénégal bi nekk Saint Saint-Louis ak bu nekk Thiès voilà donc y a d' autres choses à dire voilà donc pour l' instant ñaar yooyu noonu ñoo officiel au niveau des régions mais euh, non ñëpp dëkkuñu Dakar am na ñoo xamante ne tey ci rencontre bi ñuy def nii ñoom ñu ngi jóge ba Saint-Louis euh, kii di Weuz Andreas exemple la ci am na si ñaari élément yoo xam ne ñu ngi jóge Thiès euh, voilà donc bëri na bëri na ñoo xamante ne ñu ngi jóge fu fu nekk di di ñëw di ñu adhéré parce que Manchester United moo leen moo leen ñor moom lañ bëgg te itam am na ñuy rêvé ci ci club boobu noonu quoi donc am na lu tax ñu def loolu yàqoo wala mu am ay waaw euh, coow du ñàkk si mbooloo coow du du ñàkk si mbooloo mais je pense que itam euh, nous sommes matures parce que yàlla def na itam euh, ñun ñëpp li ñu bokk ñun ñoo ko bëggandool suñu bopp. c'est un club boo xamante ne c'est il n'est pas au pays en fait nekkul Sénégal c'est hors du pays donc c'est un projet commun te projet commun nag boo ko amee parfois waxtaan yi. Euh, du ñàkk euh, kàddu yi di bañ ànd loolu c'est c'est tout à fait normal comme ni ko président comité sportif bi euh, développé tout à l'heure parfois ci réunion yi ci ci ci ci waxtaan yi ci prise de décision yi day métti dina tar mais taxul ñun ñu mun a tas suñu biir non no non c'est-à-dire que bu bu bu réeroo amee rek c'est parce que gars yi gis nañ ne war nañ mën a def lu gën a lu gën a baax li nga xamante ne moom la ñuy proposé gars yi. Hmm. waaw loolu euh, déjà euh, dañ si dañ si dañ siy remercier d'abord euh, les membres parce que tey association mënoo ko taxaw te amoo reconnaissance nationale ñun li ñuy nekk di rêve di ko wër du reconnaissance internationale kese mais parce que on veut vraiment participer ci li nga xamante ne moom mooy développement wu Sénégal par le biais de Manchester United reconnaissance nationale am nañ ko depuis 2020 waaw ñu ngi créé association bi en 2018 euh, suñu filiation yi mu ngi dugg ba suñu récépissé de dépôt euh, jotoon na jotoon na génn euh, loolu moom côté boobu am nañ ci sant nañ ci yàlla bu baax et itam yàlla def na au niveau de Manchester United bi nga xamante ne itam moom la ñuy supporter am nañ fa ay link am nañ fa ay contact yoo xamante ne itam par rapport ak événement yi ñuy def par rapport ak projet bi fu mu toll ñu ngi leen di rendre compte xëy na nag liggéey bi am na leneen lu muy laaj pour que yi gën a mën a gis Euh, Manchester United ñu ñëw fii Sénégal mais c'est ça le projet ñu ngi ci nga gis euh, waaw foofu damay wax amin <laughs> wax amin parce que gàcc ngaalaama euh, Gueye Teranga bii ma taxawal euh, gàcc ngaalaama itam ki nga xamante ne moom mooy Seydou Diallo le président du comité sportif Euh, gaa ci ngaalaama waa bureau bi ah euh, laay wax d'abord par le biais de de Ibrahima Bidici Balde bi nga xam ne mooy président bi taxawal association yombul taxawal association yombul yombul quoi franchement non non xam nga en fait euh, boo déggee ma ne la association yombul maanaam maa ngi gis maa ngi remercier ñi sànq ñun bu ñu amee événement par exemple Euh, dañuy réunion ñun waa bureau bi ñu ne kat telle date am nañ événement ça c'était en 2018 ba ñuy doog a débuté ñu ne événement bi lan la ñu ne rencontre la ñu war a def ñun suñu biir wala rencontre la ñu war a def ak telle équipe. waa bureau bi ne ah comme noonu la demee ñun suñu biir nañ koloo koloo ñu takkale ñun suñu biir ñu xool naka la ñuy fayee ñun stade bi ñi nga xamante ne itam dañuy jóge ci région yi di ñëw ñun waa bureau bi ñu ñooy koloo koloo ñu xool nan la ñuy def ba mën a jàppale ñooñu ci côté pass. Euh, de 2018 lañ ko débuté. doon lañ ko débuté jusqu'en 2023 2023 nag si la waa membres yi association yi commencé naan mais comment se fait-il yéen bu ngeen euh, organiser événement ak réussite bi muy am yéen du ngeen laaj kenn xaalis fa ngeen di jëlee xaalis ñun amuñu ay bailleur amuñu kenn koo xamante ne daf ñuy financer amuñu kenn koo xam ne daf ñuy jàppale euh, lépp lu ñuy def yàlla def na ñun waa bureau bi géey bii taxaw mooy génnee dërëmam ma génnee sama dërëm président bi génnee keneen keneen génnee seen dërëm ñu boole ko ci donc jël alal boobu noonu taxale ko pour def suñu suñuy suñuy événement donc nag on rêve vraiment ñu ngi koy rêvé ñu ngi koy ñaan itam mais je pense que liggéey la rek liggéey mooy waral euh, yu bëri mën a taxaw ñun ñoo war a liggéey loo xamante ne xëy na les bailleurs wala les gens yi nga xamante ne itam ñu ngi jàppale football ñu ñëw def ko le plus important mooy que au niveau du Sénégal au niveau de la fédération sénégalaise de football nous sommes reconnus et leneen li des nag mooy reconnaissance internationale bi foofu noonu itam ñu ngi évoluer bu baax a baax ak waa Manchester United des na nag des na nag ay ay affaires yu bëri mais quand même euh, ñu ngi sant yàlla quand même ñu ngi sant yàlla tey ak ñi nga xam ñoo leen di suivre tey yan projet gi leen doon ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ñi nga xam mooy seen association bi nan la ñuy def ak nan la ñuy intégré ndax am na ay page yi nga xam ne mooy seen page yi nga xam foofu ngeen di jaarale seen wàllu communication wala ay Facebook lu mel ni TikTok wala lu mel ni leneen nga xam ne seen communication yi foofu la war a jaar pour intégré li nga xam mooy mooy sa groupe. waaw loolu loolu am na euh, je l'ai dit moom mooy euh, groupe whatsapp yi groupe euh, facebook yi lépp fépp foo dem en fait il suffit juste de mettre MouFS 2018 ci ci barre de recherche yi bu dee sur facebook la bu dee sur tiktok la bu dee sur Instagram la aussi il suffit juste ci barre de recherche yi nga def Manchester United fan Sénégal 2018 wala nga def MouFS mooy sigle bi en fait Euh, MUFS 2018 donc boo ko defee si recherche da nga ñuy gis donc au niveau du profil page yëpp nag que ça soit sur Facebook Instagram euh, Twitter que ça soit sur euh, TikTok profil yi ci profil yi dañ fay def suñuy numéro bi nga xamante ne moom mooy numéro WhatsApp bi pour ñi nga xamante ne ils veulent intégrer bëgg nañu contacter ñu ñu jaaree ko ñu jaaree ko foofu noonu donc à ce niveau là y a pas de y a pense pour intégration yi. Et nous sommes ouverts à tous, surtout les vrais waaw salaamaaleykum euh, ñoo ngi siyaar ñëpp di bigge ñëpp incha euh, di bigge ñëpp. xoolal euh, teraange la teraange di wax di wax ni man maay. <laughs> mooy géej teraange quoi chargé communiqué commission d'organisation bi quoi affaire yooyu noonu xam nga ñun nag waaw ñoo waaw ñun nag ñoo affaire bi mais tamit waaw mais tamit gars yi ñoo ñu dooleel quoi gars yi ñoo ñu dooleel. ñu ngi jàppale aussi affaire yooyu noonu quoi euh, ndax woote nga waaw woote ñu wuy la euh, yombul quoi woote ñu wuy si la yombul moo tax saa yi gërëm gaa yëpp dañuy gërëm ñi nga xamante ne ñoo jóge ba Saint-Louis ñi nga xam ne ñoo jóge ba Fatick man Fatick laa jóge ñëw am ñu jóge ba bakkel am ñu jógee am ñu jógee grand waa euh, waa grand kii grand théâtre am ñu jógee grand Dakar ñu jógee ay waa ñu jógee Parcelles ñu jógee si ay gox yi ci ay gox yi ci ay gox yi fasantikoo quoi ñi jóge ne ba waaw ñi jóge ne ba euh, bari ba waaw ba euh, bari fii tamit aussi ñi bar ñi affaire yooyu noonu waaw moo tax ñu wut la yombul nag moo tax ñuy moo tax ñu remercier ñëpp ñu remercier tamit association bu baax a baax a baax a baax di wax ni euh, kontaan nañ bu baax di wax ni tamit waaw am nañ beneen journée moom suñ kanam mooy le 18 août incha allah contre Chelsea stade Malika incha allah boobu na à partir de 10 heures doon léegi ñoo ngi woo ñëpp di gërëm di gërëm tamit président bi di gërëm trésorier bi di jërëm tamit euh, membre yëpp daal ku lim da ngay jum quoi mais ñëpp ñëpp ñoo leen di gërëm ñoo leen di waaw ñoo leen di gërëm bu baax a baax a baax ndax woote ñu wuyu si la yombul quoi di leen gërëm yow caméraman bi di la jaajëfal bu baax baax incha allah Dakar Midi TV. Dakar Midi TV ñu leen di euh, fokk ñoom itam ñu ñëw jàpp ci li nga xamante ne moom mooy Dakar Midi TV bien vrai que ils sont suivis mais ils ont besoin de plus de visibilité donc nous membres itam c' à nous de leen jàppale parce que ñoom itam ils ont fait des efforts ils ont fait des sacrifices pour se déplacer pour venir c' était pas facile et ils se sont déplacés ils sont venus juste pour couvrir li nga xamante ne mooy suñu événement mooy Dakar euh, Midi TV Midi TV comme Dakar Midi TV loolu moom ca kaw ca kanam ña ko waa Manchester United xam Dakar Midi TV léegi Manchester United fan Sénégal euh, ñoo ngi leen di woo yéen ñëpp waa ñu dem Dakar Midi City euh, waa euh, ñu abonné fa affaire yooyu noonu yokk leen follower bu baax a baax baax incha allah di gërëm ñëpp daal di. te li si gën a garaaw mooy waa Dakar waa TV seen camé seen bi. waa Jaraaf la. waa Jaraaf la mais nag instant bii nii dañ koy <laughs> waa instant dañ koy baal quoi tant que dugg na la dugg si waaw dañ koy jéem a baal rek affaire yooyu noonu incha allah waaw te préparation <laughs> bu ñëwee fii rek ma jëm duma yaam gën a xam aller retour incha allah jaajëf mais nag j'espère Jaraaf ah, wax leen ko waa ah, waa AS Jaraaf itam ah, dañuy dañuy yëngatu ci développement football local Euh, donc occasion la tey bu ñu gisee kilifa bu jógee jaraaf déplacé wu ñëw fii parce que yàlla def na ci association bi euh, ci suñu développement suñuy façon bi ñuy développer le football local weesuwul tey ñu jouer ak match koo xamante ne moom mooy moom mooy euh, waa waa waa waa kii waa gore Gorée Gorée US Gorée US Gorée Manchester United fan Sénégal football na ak moom. équipe A bi équipe A bi en plus ba pare nag yàlla may ñu ndam ci kaw waa US Gorée. loolu ñu ngi ko fubalee woon stade Mbao. waaw stade Mbao waaw. stade Mbao bi lañ ko fubalee woon 1-0 lañ leen dóoroon donc loolu moom moo lay wan ne maanaam tey li lii association bii di développé c'est pour l'intérêt du football local c'est pour l'intérêt du football sénégalais parce que tey bu Manchester United euh, ñëwee déplacé wu ñëw tey Sénégal c'est pour vraiment euh, mettre un partenariat avec le clubs yi fi nekk wala xool nan la mën a développer le football local. loolu noonu itam franchement ñu ngi ciy woo waa jaraaf bu baax a baax a baax et xam naa dinañ xool nan la ñuy organiser woo incha allah ba football ak ñoom match amical waaw bëgg nañ ko lool ñu nag waa AS jaraaf nga jot nga nga ñu euh, message boobu noonu ci président bi ak waa jaraaf yëpp. aywa kontaan nañ ci membre yëpp kontaan nañ ci jaay yëpp big man sœur man sœur. glory glory man united glory man united.